Euh, nuyu nañ leen ziar leen di leen jaajëfal bu baax a baax di am mbégte ak kontante bu baax a baax ci bàyyi xel gi ngeen di bàyyi xel seen site internet bi di Refane TV tey nag ñu ngi fii ci Ndangalma lycée bu Ndangalma ñëw ci nga xam élèves yi nga xamante ni ñooy def classe examen ñëw waxtaan ak ñoom li nga xamante ne nii moo di Covid 19 taxawal seen liggéey bi wala taxawal seen njàng mi ay jamono yi yàgg jànguñu nekk classe examen naka lañ dundee woon loolu su ngeen ci bëggee xam dara rek topp leen ñu ci kanam. président jury 1388. lise c'est ma donc centre bi donc euh, pour euh, l'instant lepp dal mu ngi déroulé wu normalement wa nombre euh, inscrit mu ngi tollu ci ñetti témèr ak juróom fuk ak ben wa ñi nga xamna nak nag teewunu toll nañ ci juróom ñent ñi ay jigen lañu kenn ki mo nekk goor donc ñi nga xamni ñum ñoo composé donc toll nañ ci ñetti témèr ak ñeent fukk ak juroom ben waaw loolu mo fi nek si ñi nga xamni ñoo fi composé ak absence yi ak euh, ñi nga xamni ñum ñoo ñoo composé waaw si nak euh, geste barrière nak ñu ngi jëm suñu kent lay katan pour euh, ñom ñu respecter donc geste barrière yi donc pour que ku nekk mën a ñibbi si jàmm tamit ah, xanaa njàkkare <laughs> parce que nit ki nga xam ne su dee métier bi nga xam ne da nga see nekk di liggéey soo liggéeyatul rek dafay mel ni genre routine à chaque fois tu fais la même sos donc njàkkare nga koy dundee wante ban ne examen yi dina am donc gestes yi lanu mën a respecter pour mën a def examen bi loolu tamit ñu ngi koy rafetlu pour que Eh, élèves yi bañ a ñàkk benn année parce que ñak année mom wax deug fa yalla baaxul ci rew wa lolu mom <laughs> xana xana candidat yi lañ koy laccé mom lolu <laughs> mom xamna ni ñom euh, ça dépend sen état d'esprit rek xam nga ne amna ñen ñi nga xam xeyna dañ nan euh, bon comme que euh, affaire bi tollu na fi xeyna dootu ñu démarrer té wa ñu daal di arrêté jang amna ñi nga xam tamit xeyna tamit ñom dañ né bon ñoo ñaka examen ñom dañ nan jang normalement doon continuer di jang normalement waaw mais de toutes les façons moom xam naa ne moom dina si am impact loolu moom c'est c'est sûr c'est sûr parce que toog lu yàgg jàngoo moom waaw euh, dina am impact. waaw lu rek def le maximum <laughs> xam ne euh, seul le travail pay donc ginnaaw góorgóorlu bi nga def nag lu si des moom yàllaay mottali rek <laughs> waaw jaar fa nga war a jaar rek waaw respecter li nga war a respecter réviser normalement et. Euh, tamit euh, lire toutes les épreuves avant donc lors du démarrage quoi lire les euh, épreuves du moins ça durant durant le démarrage loolu tamit parce que am na ñu nga xamné ñak lire épreuve bi intégralement mom des fois moom moo leen di porte préjudice. waaw waaw donc <laughs> ki nga xamné day informer population bi lolou mom xana ñu ngi len di ndokkel waaw ñu len encourager bu baax. Ah, si eh, information bi nga xam xam nga ne su dé par exemple nit ki dafa wara déplacer pour dem xam benn information mu tok këram nga indil ko information bi loolu mom ñu ngi si eh, gërëm bu baaxa baax wa xam nga ne fu mu nekk resultai rien n'est encore définitif ñu démé ba résultat yi ñu war ko publier parce que bu ñëk waxon par messagerie donc euh, le directeur de l'office du bac sax défon na si benn conférence de presse waaw légui mom xam nga ne euh, dafa né gars yi doon nañ ko sécurité wante dafa nekk ki nga xam ne am na li nga xam ne moom moo gën na ko indi waaw pendant temps nag ñu ngi toog di xaar da xam parce que rien pour l' instant rien n'est encore définitif quoi léegi suñu demee ba nga xam ne war nañ génn résultat yi après dinañ jot euh, information lan la ñuy lan la ñuy def incha allah ndax dañuy affiché wala dañuy bind message wala bokk euh, dañ koy euh, comment dirais dañuy def comme nun daan def waaw loolu daal moom ba tey fu mu nekk nii rien rien n'est encore définitif fu mu nekk nii waaw. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu askan bi ñuy déglu yëpp waaw ñu ngi fii ci centre bu Ndangalma muy jury 13 88 fii ci lycée Ndangalma waaw euh, kii nekk ci micro bi di proviseur bi di monsieur Touré. waaw damay jaajëfal ci question bi mais li ma mën a wax ne euh, Covid 19 bi. xaw na taxawal suñu liggéey maanaam kuy liggéey buggoo surtout njàngale bëggoo mu taxaw mais quand bi ñu reprendre élèves yi jox nañ seen këntalaay kattan te teewoon nañ depuis lors date bi ñu joxoon ba date bi ñu war a arrêté cours gis nañu élèves yi teew nañ te def nañ seen fulla euh, ci euh, absent am compte nañ juróomi absent juróomi yu absenté ci bag bi ni philo bi aussi won euh muy ñent goor ñent jigen ak benn goor waaw foog yeen sen bop mën ngeen ko témoigner parce que bi ngeen ñewé ci buntu bi amna li ngeen ci gis daf nañ ci dispositif de lavage mais yi bi ngeen ñewé yeen sen bop foog naa flashé nañ leen ngeen sogu mëna dugg ça veut dire que yeen sen bop bi ngeen ñewé flashé nañ leen ngeen sogu mëna dugg donc lool dispositif la si ngeen xoolee élèves yi aussi obligé nañ leen aussi ku nekk takk masque ak euh, distanciation ku nekk benn euh, table la toog ñu def ko en mode zigzag pour respecter distanciation bi y a aussi des solutions hydroalcooliques ay gel yoo xam ne ñu utiliser surtout personnel bi di ñëw ñu utiliser aussi donc daal dispositif yi daal yëpp daal mot na te ñu ngi ciy veiller waaw élève moom xam nga surtout kuy def examen li ñuy jàpp ñun jàngalekat mooy soo ko deful ren tamit da nga ko waroon def déwén parce que soo toogee yow lu wóor na la ne ala kulli àllen da nga bëgg a def bac su doonul ren dafa waroo doon déwén kon waroo relâché wu mun nañ gis nag ñenn ñoo xam ne waroo relâché wu gis na mun nañ gis ñenn ñoo xam ne comme ni nga ko waxee peut-être ñu relâché wu mais ñun dañuy jàpp ne du yoon parce que bac bi comme que ñoom jàng nañ ba terminal suñ ko deful ren aussi dañ koy defi déwén li ñu leen ñaaxoon mooy ñoom ñu continuer jàng te xam ne bag dina am et que ñun ci loolu lañ jàpp foog nañ li ñu toog ak nit ñi dañu déployé ci média bi ah ay salle des profs ay apprendre à la maison yi jaar ci télé bi ak rajo yi mi média yeeg presse bi lépp lu ñu def pour continuation wu jàngale bi ñun foog nañ ne élèves yi ñu ngi jàng waxuma la ñuy nekk classe examen rek. mais même ñi nekkul classe d'examen dañuy ñaan parent yi ñu ñaax leen ñu continuer jàng parce que programme yi peut-être eggul woon léegi ñu continuer jàng ko suivre ko bu baax pour déwén aussi ñu mën a continuer su boobaa daal li ñuy wax daal ñun yaakaar nañ ne élèves yi def nañ seen gëntalaay kattan te ci loolu lañ leen ñaaxoon ñu jàpp ne jàng nañ du ñàkk nag toogaay bu yàgg boo xam ne xoolooy kay yoroo kay ku toog lu yàgg yorooy kay mu am lenn loo xam ne jiixi jaaxa boo xam ne mun na ko def ci njàng ngi ñaan daal ñom ñëpp daal yalla jappalé leen ba li ñuy ragal yëpp dara bañ ci am. waaw foog li nga wax deug la élèves yi parents d'élèves yi mun nañ am titangé mais élèves yi doon ñëw chaque jour di jang di poser seen i questions ñi leen di sar ñom foog ñom actuellement ils sont suffisamment armés ba nga xam ñom ñoom nañ pour approfond euh, affronter épreuve lepp lépp lu ci waron daal prof yi def nañ ko cour yi ñi wax. terminé nañ ko def nañ ñoo ngi moom exercice ba ñenn ñi diggante bu gàtt bi ñu leen bàyyi ñoom ñu ngi woon fii di réviser seen bopp kon ba ñoom peut-être ñoo mën a wax actuellement su épreuve yi jàllee lan lañ ci gis nest pas mais ñun comme parents yi comme ñoom li ñuy ñaan mooy ñëpp admis wala ñi ci ëpp daal di admis te yaakaar nañu ñoom li ñuy am impression gisaguñu parce que tey mooy premier mooy épreuve bu njëkk bi amaguñu une benn impression mais foog nañ impression bu rafet lañ et on pense que ce ne sera pas difficile aussi pour eux parce que programme yi nañ d'abord damay remercier euh, organe de presse parce que liñ fi nekkee ñoom askan bi askan information askan bi dafa n'est-ce pas te ñenn ñëpp période de Covid ñëpp jotuñu kon su ngeen ñëwé fi def liggéey bi dañ leen sant di leen gërëm parce que ñun ngeen di liggéeyal askan ben ngeen di liggéeyal ñu bëgg aussi askan bi yëpp xam ne yéen yéen a ngi def liggéey bu mucc ayib ñun dañ leen di remercier yéen ñëpp parce que maa ngi gis euh, Refan TV Bawol euh, média production maa ngi gis aussi radio ndangalma kon vraiment dañuy wax ne vraiment def ngeen li ngeen waroon def wàccoo ngeen ak askan bi li ñu def mooy ñu ñaan leen ñoom tamit ñu topp média yi parce que ren dafa am tuuti changement ci wàllum joxe résultat yi comme que période Covid lañ nekk ñu bañ rassemblement résultat yi ni ñu ko doon joxee jël micro taxaw élèves yi taxaw ñu jox leen seeni résultat ren du demee noonu dañoo nar a dem envers les médias pour joxe fa résultat yi élèves yi ak parent yi toog kër ga jot seeni résultat kon loolu aussi wàllu résultat yi suñ koy joxee ñu ngi leen di xaar bu baax a baax a baax a baax parce que président bi du taxaw fii nit ñi yéew ko mu def parce que mu joxe résultat yi kon boobu tamit dañuy wax ne dañ leen soxla bu baax a baax a baax ñuy ñaax parent yi aussi ak élèves yi ñoom ñu déglu médias yi bu baax a baax wàllu joxe résultat yi kenn bañ a ñëw école fii ne day jël si résultat wala ñëw toog fii di xaar ay résultat ci médias yi lañ koy joxe wala ñenn ñi inscrire par SMS ñu yónnee leen ko par SMS. lépp lu ci war daal nañ ko jaarale ci média yi parce que dañuy bañ nit ñi mbooloo ndax Covid bi. askan bi nag damay wax ne parent yi def nañ seen warugar inscrire nañ seen doom toppatoo nañ leen depuis CI ba terminal di def seen kentalaay kan luñ mun ak luñ mënul élèves yi aussi ñëw nañ teew nañ ba jàng nañ ba egg si terminal kon li ñuy ñaan daal yàlla ñëpp liñ bëgg yàlla na ko yàlla def. parce que ñëpp sonn nañ élèves yi sonn nañ jàngalekat yi sonn nañ parents d'élèves yi sonn nañ état bi tamit sonn nañ ñëpp def nañ seen kentalaay kattan mun na am lépp nag mun a mot mais dañuy jàpp ne ñëpp def nañ seen kentalaay kattan ñu bëgg aussi ñoom li ñu fi wut si ñoom ñu am ko ba mun a dem université. maa ngi lay fay soxna Awa di la ziar bu baax a baax di ziar sama moroomi candidat yëpp. waa métti na mais baax na daal yàlla baax na daal. mais am na ci ay difficulté daal yu mu si andi si par rapport ak programme bi fin wu programme bi dañu ko bloqué dañoo photocopier yenn leçon yi jox ñu ko en plus doo am temps pour def pour yeggalee doo am temps daal maanaam pour programme bi nga réviser ko ba mu yegg daal maanaam moo ñu pose problème daal non ñun moom ins bi ñun waa lycée de Réfane moom macha allah suñu programme moom jeex na moom mhm. waa baaxul moom examen yi fi mu nekk baaxul mais ñoo ngi sant la daal bu baax a baax parce que boo xoolee programme bi dañ dañu ko bloqué dañu ko bâclé yëpp pour jox ñu ko xam nga ne duñu am temps pour mën a réviser yëpp yëpp mais daal mooy loolu daal di leen wax ni daal par rapport man ak li ma gisagul nii daal c'est abordable daal pour li ñu gisagul nii di leen wax daal yàlla baax na mën nañ cee génn daal en 100 pour cent bu ñu góorgóorloo te ñu wàññi stress bi ak yeneen yëpp. waa di leen ñaax si benn côté comme ça ku ñàkk bul jàpp ne dafa jàngul nañu comprendre ne année bi ni mu demee la rek. mais nekkul ne élève élève buy def examen te la ne jànguma loolu amul képp kuy def examen di nga jàng sa leçon année bi ni mu demee nii rek mooy waral moo tax ku sa waa sa doom ñàkk. encouragé ko rek mu xaar beneen yoon te xam ne Dieu est grand daal. maa ngi leen di remercier bu baax si reportage bi ngeen def parce que lii day permettre élèves yi daal maanaam ñu wàcc seen stress affaire yooyu daal vraiment.